fédération Islaahu Daarayni di mbooloo mi lëkkale mbooleem daayira yi aju ci kër sëriñ Mbàkke màddina nin koy amale at mu jot amal nañu siyaar bu mag ci kanam sëriñ Cheikh Mbàkke màddina xalifaab sëriñ Mbàkke màddina mbokki taalibe yi bàyyeekoo ci ay diwaan yu fasantikoo ci biir Touba biti Touba ci biir réew mi bu bitim réew ñëw nañ nag yeesal seen ak jaayante seen ak njëbbal ci kanam Serigne Cheikh Mbacke Madina bis bi itam ràññee nañ ci teewaayu lenn ci njabootuk Serigne Touba Cheikh Ahmadou Bamba Xadim Rasoul rawatina nag ñi aju ci Cheikh Mouhamadul Moustapha délégation bu am solo ci njiitu Serigne Ousmane Mbacke Gaynde Fatma teew nañ fa ci turu Serigne Ahmadou Makhtar Mbacke xalifab Daaru Xuddoos waaye itam teewal fa ñi di diwaanu Muridina lëkkale mbooleem daayira yi nekk ci wunti këri Cheikh Mouhamadul mustafaa mbokki taalibe yi nin koy defee ñëw nañ tàmbalee ko ci njàngum alxuraanul karim njàngum de bernde jokk ak mbokk di xaar sëriñ bi daal di génn ndaje mi itam bokk na ci ñi nga xam ne nii seen ab teewaay fës na fa lool muy sët ak sëtaati sëriñ Mbàkke Madina waaye itam daayira turandoo yi ak mboolem daayira yi nga xam ne ni dañoo aju ci biir kër gi mu nekk ndaje moo xam ne nii ginnaaw bi ñu toogee ab diir sëriñ Cheikh Mbàkke màddina génn si na ñu daal di fa yëkkati ay kàddu yu am solo sëriñ Ousmane Mbàkke mi doon wax ci turu sëriñ Ahmadou Mokhtar Mbàkke mi ko yebal waaye doon wax nag ci turu daayira diwaanu murit diina mi lëkkale mbooleem daayira yi aju ci kër sëriñ Modou Moustapha. sëriñ bi ñun murit yëpp amee nañ la cant waaye daal xudus moo ci raw defe naa daal man maa ci raw waaye na di la seere ni taalib yi mbokk yëpp xam nañ la xam nañ sa taxawaay ci yoonu. taxawaay ci biir bi moom dañ koo bokk di dund ñun ñépp ko xamandoo ñoo koy gisandoo waaye sa taxawaay ci yoon ñun ñëpp xam nañ ko te muy taxawaay bi moo xam ne Cheikh Moustapha rek nga ko taxawal kon loolu ñun ñëpp ñu ci biir ak képp ku yaakaar Cheikh Moustapha di la xamal nag ne jëw jëwriñ jële yàlla def ci kër gi nit ñëpp it nag nongul nañ la ko ndax xam nañ ne mate nga ko di lay xamalit ne ñëpp yi ngi lay diglu ñëpp ñi ngi lay bàyyi xel loolu nag lu la yàlla defal la waaye loo téel sa bopp la ndax yàlla dana def mbir ba noppi kam ko defal bañ koo mën a téye wala mu ñàkk koo téye na ko war a téye waaye loolu lépp yàlla musal na ni ci li ci des nag ñaan rek la ñu lay ñaanal yàlla suñu boroom mi nga xam ne moo sañ lépp mi nga xam ne mooy def lépp te taliwul dara di teewlu ci Sëriñ Tuubaa mi ñu yaakaar ci barkeb Seex yàlla defal na du fan ko ànd ak wér yàlla dolli sa sutura ak sa sag ndax sa sag ak sa sutura ñun ñëpp ngi ci biir ñun ñëpp ngi ci biir ah loolu man mën naa ci doon firnde ndax bari na looy wax di ko jaare ci man wala nga koy jëf di ko jaare ci man ci Daaru Xudoos doo nga tax bëgg nit ñëpp xam ne ñëpp nga ko defal rek a tax waaye du doon loo tële du doon li loo ñàkk mën a waxal sa bopp wala loo mën a jëfal jëfloo kaneen wala nga wax loo kaneen bàyyi xel boobu nga bàyyi xel Cheikh Moustapha ak njabootam loolu ñëpp Sénégal jëlal naa ñoom Daaru Xudoos waaye Sénégal gépp ko war a xam ndax Sëriñ Tuubaa Sénégal gépp ko bokk ci li yàlla def Cheikh Moustapha ci biir yoon wi ku xam yoon wi xam nga ko kon nag ñépp war a xam sa tolluwaay bi loolu nag ñu ngi koy waxaale Sëriñ Ahmad ndax xamit dara ump ko ci sa taxawaay mu nangu la koy loolit nag di ci diglu di la bàyyi xel ci lu bari loolu it njaboot gépp war nañ ko xam kon daal na xam ne li la yàlla def ci kër gi nit ñi xam nañ ko nungul nañ la ko ñu lay sàkku nag nga ñaanaan na ndax jëwriñ bu fekkee dafa jiite ci tool te mat sëkk lam doon bu liggéey ba am ngërëm ñamu jiite woon sañ ñoo taxaw na ko ñaanal ñaanalal njaboot gépp njabootu Daaru Xudoos gépp lay sàkku nga ñaanal nanga nu ñaanal jàmm ak juboo nanga nu ñaanal jub ci am ngërëmul sëriñ bi lii rek ci li sunu njariñ la gannaaw kàddu yu am solo yooyu bàyyi ko ci sëriñ Ousmane Mbàkke sëriñ Mbàkke Madina moom sëriñ Daam Anta Mbàkke yëkkati na ay kàddu ci turu mboolem turandooy sëriñ Mbàkke Madina sëriñ Touba mii nu njëkk a tudd dafa wax ne billaahi lasi laa ilaha illa huwa alkarimu alalimu xayaati wa mamaati wa harakaati wa sakkanaati ma seydina na ak yëngutoom akuk dalam ak ak nekk ci sayir mook sallallahu alayhi wa sallam ñoo mu am benn naar bu mag bu nekkoon ci murtani mu am lu tolloog juróom-ñaar fukki at musta am doom mu bëgg doom musu koo am mu fu ne mu wuti ko fu mënu mënu koo am ñu yebal ko ci sëriñ tuubaa ci njaari bi mu ñëw wut si ko fi bi muy ñëw nee na woon li mu gën a bëgg mooy mu am doom bu góor bu mu tuddee am tur bu mu tudd ba mu ñëwee ba laajte ba agsi ci njaari bi waxut kenn dara dafa ñëw laajte sëñ bi rek ñu ne ko sëñ baa ngi ci biir mu toog ba sëñ bi mu waa ko jëm si ci moom avant muy wax sëñ bi dara sëriñ bi daal di tudd tam na ko diw naa nu bas basiruka bi xulaamin wax daal di koy wax turam ko ba mu bëggoon mu tudde ko ko mu ne ko diw danañ le bëggale doom ju góor na nga ko tudde diw naar ba yuuxu ne ko waat naa ne yaa fi nekkal yàlla ak yonente bi sëriñ Tuubaa moomu nag moo bu ne suriyatan tayyibatan tuj darjidu nax jënabil Mustafa taj taxidu comme moom ku ko neex mu may la bu góor kon moom moo tànni bagaasam ku ko neex mu boole la ca mu tànnal ñu nag jëmm ji di Serigne Mbacke Madina mu yëkkati ko nag ba ñëpp xam ko te moom Serigne Touba mu wax ne képp ku yàlla yëkkati soo ko bëggee suufeel ci suuf rek nga jëm waaye képp ku yàlla daaneel boo ko yëgee yëkkati ci suuf rek nga jëm kon moom mi bokk na ci ñu yàlla yëkkati mu sant bu baax ndax moom day la Cheikh Mouhamadul Mourtada Mbacke waxoon ne nekkoon na ci li ko war rek ba jógee loolu nag bu la ko doomi Serigne Touba seedee la doy na sëkk te ku ko xam xam ne loolu rek nga xam ci moom kon noo ngi koy sant bu baax nun nag nu xam ne comme alxuraan la bëgg nu sosoo woon ci di jàng ci liñ tàmbalee gun am rek amagoon noonu nañ juróom benn fukki kaamil ak juróom ñaar ak juróom-ñaari nuuru daayira ni ak wakaana xam 313 loolu dañ koo tàmbalee waaye insha allah bu màggal gi balaa màggal gi asi dana romb balaa màggal gi si dana romb loolu nu delsi nag ci sunu kilifa gu tedd gii nun di alxuraan ji noo koy jàng suñ boroom di ñu ci suturaal tamit léeg-léeg ñu am accès ci ay aaya di jéem a xam sax lu muy tekki mu am ci bu ñuy wax ni inna kasiran min al ahbaari wa roxbaari la yàkkuloon na am naasi bil baatili yow day ke mucc nga ci ak képp ko mel ni yow loo kenn sunuloo kenn naxoo kenn waaye mu tegaat ci ne walla si na yàq ni soxna saxaaba wal fiddata wala yunfiquuna fi sabilillahi fa basirhum bi asabin alimin yow day mbàkke ku la xam ne bi li li ñuy wax covid bi bi mu agsee ku fi ñëw gisuñ mukk nga sensé sa sa ni nga doon doxale ku fi ñëw heure ba mu la daan gis dana la gis ku fi ñëw tamit soxla su ko fi mën a indi dana ko faju fii ku fi ñëw da nga fekk ba tàyyi ay nit di fi toog di wut lu ñu yóbbu ca kër ga te loolu yàlla rek tax nga di ko def kon yàlla mi tax nga di ko def yàlla na la fay mu mel ni tamit damaa mas sa dégg ku mas a wax ne Sëriñ Mbàkke Madina mas naa wax ne baat boobu bu ñuy wax dignité day ku nekk war nga ko am rawatina kilifa loolu ku la xam xam ne Mbàkke xam nañ ko ci yow beneen ba nag mooy li alquran di wax ne wa minhum man haahadallaha la in ataana min fadlihi lana saddaqana wala nakunana min saalihina fa lama aatahum min fadlihi baxilo bihi wa taala wa hum muriduna yow day mbàkke loolu gaaru la ñaan ne yow suñu borom yàlla na nga ma may xéewal ñëw ci yonente bi ne ko damaa bëggoon nga dogal ma suñu borom defal ma xéewal saa ma suñ borom defalee xéewal day dinaa ci saraxe dinaa ci def la ma ci war a def kookee de ba ko suñu borom andilee may ko xéewal ga daf caa dalli woon suñ borom ginnaaw di lu mu wut a def noo ngi lay ñaanal te di la sant di la gërëm di wax ne man de sama njàngum alxuraan lu ne sëriñ daam atta daf ko cee def daal di may sonal lool su ma daan jànge daf koo waxoon sax ne ko bu mu liggéey bu mu sàmm ma am fa ay at yu gàtt mokkal alxuraan mu sonal ma lool ne ma da nga bindub kaamil ndax li ma bëgg ci yéen kenn ku ci ne kama la tudde su ma soñoon dama lay da ngay bindub kaamil ma boole la kaamil ba jox la kama la tudde daal di ma lu yéen a jooju laa lay amul sëriñ Mbàkke Madina daal nañ ci jox ay wax yoo baree baree baree baree bare suñ wax daal mooy noo ngi gën soññ ci turandooy Sëriñ Mbàkke màddina yii nu gën a jàpp daayira bii di gën a di lu baax rekk lay doon Sëriñ Mbàkke Madina li mu am ay nawle ma ku njëkk jox boo xoolee li ku njëkk tudd ci ay turandoo ci ay ay nawleem rekk lanu kon nag loole nañ ko gën a sant doy na sëkk ci kuñ ne la sëñ Daam Abdu Rahmaan mooy sa maam doy na sëkk ci kuñ ne la maam Thierno Birahim mooy sa maam rawatina Serigne Touba. Serigne Cheikh Lo Daïra mi nga xam ne ni jamono yi moo nekk ci bopp fédération yi nii ci fàttali rek lëkkale mbooleem daayira yi aju ci kër sëñ Mbàkke Madina moom itam yëkkati na ay kàddu yu am solo di kàddooy cant kàddooy ngërëm kàddooy ñaan waaye kàddooy jaayante ñeel mbooleem mbooloo mi di yi nii ci kanam sëriñ Cheikh Mbàkke Madina. di feddali wàllu feddali waat sunu njëbbal di feddali sunu cofeel ci sunu diggante ak sunu sëriñ ba sëriñ Mbacke Madina ñu ngi yeesalaat sunu njëbbal ñun ñëpp mbooleem njabootu sëriñ Mbacke Madina ndax yaa fii sëriñ Mbacke Madina ndax mbooloo mii ba mu ñu digalee ñu di ko taxawal yow la jiitaloon nga àndoon ak ay mag ba taxawal nga ay daayira yow sa jëmmi bopp ay daayira yu daayira yu bari ci jamono sëriñ Mbacke Madina kon liggéey boobee mu la santoon moom la suñu borom barkeel ba mu agsi fii kon noo la koy eh, noo ngi lay sant baax di la seereel it mbooloo mii muy mbooloom daayira sëriñ Mbacke mën na yii nga xam ne ñoo ne ci biir tubaa ak yi nekk ci bitim Touba muy département bi ak biir réew mi bitim réew yëpp kenn ku ci nekk fa mu nekk sa ndigal rek la fa la fa la la la fa nekk di déglu kenn ku ne ma nga ne siiw ba dégg ba nga digal ko mu def ko kon loolu noonu la koy seeral ne eh, mbooloo mi mbooloo lañ moo xam ne wax dëgg yàlla la sëñ bi doon séntu ci ñoom mel na ne eh, def nañu ko ah, lii nga nu mujj jox ndigal rek muy daara yi alxuraan yi sëriñ Mbàkke mën na ji nga xam ne ah, ku nekk xam na sëriñ Mbàkke na ni menam ci alxuraan nga jox nu ndigal jox nu béréb yu yaatu Euh, si nga xam ne danga nga li naan saahir ak baatin nga ca boole yaa na jox bërëb sa loxo ci jiitu sa loxo mooy waxtu wane sa loxo di di di di di ci ñëw loolu ñu ngi lay seereel ne mbooloo miit mbooloo mi taxaw nañ ci taxawaay boo xam ne wax dëgg yàlla taxawaay bu yéeme la kon noonu la koy seereel di la wëlbatiku di see di la seereel ci sa bokk yii ndax dafa am ay kàdd yoo xam ne dafa bàyyi koo ci kilifa ñoo ma waxoon ne man na nga ko wax ma ne woon su ma agsee ci jataay bi laa koy wax sëriñ Ousmane Mbakke dafa mel ne maanaam li ma li ma li naan li ma logoon da koo da ko da ko da ko da koo génne sëriñ Ahmadul Muxtaar ni nga no waxe woon ne bis bii balañ cee def lenn nañ dem ba ca moom noonee lañ ko defee keroog ban demee fa moom la mun wax mooy na ngeen na ngeen wax sëriñ Cheikh day na sant naa ko gërëm naa ko waxtu wu nekkin maa ngi koy ñaanal lii moo nu ko wax ah sëriñ Abdourahmane Mbacké moom sëriñ Cheikh Gaynde Fatma moom it ba ma fa demee nga xam ne sëriñ Ousmane Mbacké mii laa njëkk jaar mu woo ko ci sama kanam wax ak moom ma dellu dem fa lam ma wax mooy daal na nga xamal ne sëriñ Cheikh fu nu ne rek moom lan fa nekkal bis bii bëggoon naa cee ñëw waaye nag mu ma ñëw dit dinaa jox ndigal sëñ Ousmane mu ànd ak mbooleem daayira yi ñoom ñëpp ñu bokk fi teew loolu it firndeel nañ ko ndax ñoom ñëpp a ngi sa doom sa doom sëriñ Moustapha Mohamed moo ma waxoon ci làmmiñu boppam ah, ne ma seex boo demee nga ne sëriñ seex nga ne ko lay li ma mën a waat noonu la ma ko waxee de du ma ko guddal du ndax kilifa bu la waxee da ngay seet lam la wax nga yem ca mu ne ma na nga wax sëriñ seex ne ko fu ma nekk rek moom laa fa nekkal fu moom laa fa nekkal lépp lu may def moom laa ko defal na ko wóor cëng ni daal mooy sama waajur moom rek la laay xool lii de moo ma ko waxoon ne ma nanga ko wax xay na nag xaw ma bëggoon na ma waxee ko ci mboolo waaye yaakaar naa ne bëgg euh, waxe ko ci mbooloo def naa wàññiwu dara ndax ñëpp seeree xam ne sëñ Moustapha Mouhamed noonu la taxaw sëñ Cheikh kon dañuy dañuy daal di Euh, mel ne la sa waajur wa sëñ xaadim waxoon ne daaru xudus benn baat baamu ko daaru xudus benn baat daaru xudus benn baat jotaay bii firndeel na ko kon nag mbakke noo ngi siyaare bii ñu la siyaare ah, nga ñaanal suñu borom mu tabbalal nu ko ca siyaare bi nga xam ne gars yi jóge woon nañ fii dem siyaare ji sëriñ Touba ca Sarsara ba sëriñ Touba jagleel leen aw way ina la seen illaa Sarsara xat xasadoo siyaarati faaraxoot daarayn aw saara loolee mu leen jagal jagleloon ñoo ngi lay ñoo ngi sakku nga ñaanal nu sunu borom tabaaraka wa mu tabbal nu ci siyaare boobee noo ngi lay sant bu baax mbooloo mi seen xool sedd na guy guy guy guy cew ah, moom daal Mbakke liñ ci fas sëñ Ousmane wax na ko léegi sëñ Mbakke wax ko sëñ euh, sëñ Ousmane Mbakke wax Gaynde Fatma wax na ko sëñ Mbacke màddina moom sëñ Daamata wax na ko li ñu fas ci siyaare bi daal mooy ñun ñëpp mën na ko nongaloo ba noppi nga yàgg fi lool sunu boroom dolli sa say at dolli sa wér ba li nga yéene liggéeyal Cheikh Moustapha lépp nga def ko na ko bëgg gannaaw kàddu yu am solo yooyu nag ci la Serigne Cheikh Mbacke màddina xalifaab sëriñ Mbacke màddina daal di yëkkati ay kàddu ci biir kàddu yi nag ginnaaw bi mu santee bu baax a baax teewaayu ñenn ci njabootuk Serigne Touba rawatina nag ñi mbokkal Cheikh Mouhamadul Moustapha la gën a fës ci ay kàddoom du lenn lu dul sant bu baax a baax xiir mbokki taalibe yi ci liggéey ak jaamu suñu boroom. sëriñ bi nee na mi ngi nuyu mbooloo mi yëpp di wax salaamaaleykum wa rahmatullah. nee na nuyoo bi nag mi ngi ciy jiital ñi bokkal Cheikh Mouhamadul Moustapha ñi fi teew ak ñi amoon yéen teew te teewuñu. di ci teg mboolem ñi mbokkal sëñ Mbàkke Madina ne mi ngi leen di sant di sant mbooloo mii nga xam ne ñoo amal bis bi daaw ba ren biñ jógee fii ba léegi ñu ngi fexe ci lu ko amalaat sëriñ bi nee na amee nañu cant bu baax a baax a baax nee na cant gi nag lépp bëgg lu baax rekk la moo leen tax di sonn guddi ak bëccëg te lu ñu sonn lu mu bari bari nee na du jot di Sëriñ Tuubaa sonn ci sallallahu alayhi wa sallam nee na yi lu mu bari bari jotut di Sëriñ Tuubaa sonn ci coono sonnal yonent bi alayhi salaatu wa salaam nee na kon nañ ci rafet njort bu baax wax na ku koy liggéeyal ñaane ku ko liggéeyal mu nangu ko dafa ñaan ku ko liggéeyal ñu nangu ko nee na tubaab Tuubaa moo ne ni nga nangoo sama liggéey moo ñaan boromam na ko nangu liggéey ku koy liggéeyal nee na kon nag rafet njort rek moo war ci lii nee na la ca nag mooy fàttali li ñu fi dajale mooy ndigalal suñu borom li dañu fi andi ngir ñu jaamu ko nañ sax ci jaamu googu bu baax te bañ cee boole dara yaakaar ko doyloo ko wóolu ko ragal ko la ca des nag ñu bàyyi ko moom lotut ci dara lu ne man na lu ne am na nee na mi ngi ñaan ci barke Serigne su sunu borom faj aaju yépp tey ak ëllëg musal ñëpp tey ak ëllëg dafa leen ci lu kawe seen jot ci sunu borom ak sëriñ bi nee na jërë jëf na ñëpp taalal ziar bu am solo bi nag ñu ko doon amale ci kër sëriñ Cheikh Bombali gi nekk fii ci tuubaa ci 30 bi ci yoonu madiyaana at mu jot dañ koy daal di amal saa suñ ne ëllëg la ñuy amal màggaluk Serigne Mbacke Madina ci fàttali rek doonoon ñaareelu xalifab cheikh Mouhamadul Moustapha gannaaw Serigne Cheikh Mbacke Gaynde Fatma jëf ji nag ci fàttali di jëf joo xam ne nii fédération Islaahu Daarayni lëkkale mbooleem daayira yi aju ci kër Serigne Mbacke Madina ñoo koy amal at mu jot ngir nag tàmbaleeku màggaluk Serigne Mbacke Madina di ñaan ci barkeb Serigne Touba Cheikh Ahmadou Bamba Xaadim Rasoul suñ borom tas ñu ci barkeem.